billahi macha allah wa salaamualeykum mbokku téléspectateurs yi salaamualeykum soppe yeeg xarit yi dal leen ak jàmm ci seen kanamu télévision Futur Média ñu leen di ñaanal <clears throat> kenn ak jàmm ngeen bàyyi baal ma àq ndax njaayeen ni léegi say dañuy dugg ci plateau yi macha allah ñu ngeen nuyu bu baax a baax sunu PDG mboolem directeur ci biir kër gi ak itam tout le personnel daa dee wéyal nuyoo boobu mbokk yi dem seeti ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi ak kilifa aada yi. boole ci cofeel guddul jeex noo ngi leen di nemmeeku di leen ziyaara di leen ñaanal yàlla itam gudd fan ak wér nu nu koy ñaanalee saa su ne sunu xalifa généraux yi boole ci cofeel gudul jeex di ñaan li tam sunu mbokki chrétiens yi ndax ñoom ñu ngi ci carême lépp loo xam ne ñaan nañ ko yal na ko sunu borom nangu salaamaaleykum dinañ ko wax itam ñi nga xam ne ñoo nekk ci hôpitaux yi cliniques yi ak dispensaires yi ñaan yàlla yàlla wéral leen te bañ a tëral kenn ñi nga xam ne itam ñoo nekk ci seen wet di leen toppatoo muy docteurs yi yal na yàlla sàmmal ñu leen noonu tam la ñuy duggee ba tey ci biir prison yi ñi nga xam ne caabi daf leen a féete gannaaw di leen masalu coono toogaay yooyu macha allah yal na ko yàlla def càngaay ndax àdduna moo ni mel ku fi yàgg ku ne di nga ñam ci yi fi am léegi saay dana la neex léegi saay mu jàqal la waaye dañuy wax alhamdulilah ala kulli xaal macha allah nu ngi leen di gërëm bu baax a baax fàttaliku sunu wayjur yu baax yi ñu doon àndal tey ñu nekk ci njëggalu sunu borom ak sunuy wasila macha allah yal na yàlla taas ñu ci seen barke yóbbu leen ci aljana yi gën a kawe dal leen ak jàmm ci seen émission wareef démb rek ñu ngi doon waxtaan waxtaan bu am solo macha allah waaye danoo gannaaw dañu lëkkalikoo ak waa AMREF ñoom itam tey dañoo ñëw ngir indi ay leeral jëm ci wàllu Covid 19 macha allah kiñ Euh, dalal di soxna Fatimetou Zahra Thiam ñuy kontaan lool waaye ajaratu Linguère maa ngi lay nuyu bu baax a baax laa tay dara maa ngi lay fay bu baax a baax a baax comme ni nga ko waxee rek euh, démb moom wax dëgg yàlla waxtaan wi ñu a baax kon dañuy door rek niñ daan dooret ne te jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh ñaanal suñu maam suñu soppe ba maam Cheikh Tidiane Al Maktoum yàlla yokku leeram taasuñ ci barkeem Sëriñ Muntaqa moom Cheikh Mouhamadou Bassirou yàlla na yan bi woyof lool ci kawam Baye Abdoulaye Thiaw laay yàgg fi lool ak mbooleem suñu xalif généraux yi yéene kenn mbaar mi ñun bu ñuy nelaw yéen ngi ci dar bi te jàmmi réew mi rek leen fa bàyyi yaay dégg jigéen yàlla na dëkk ak soppeem ba Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ak mbooleem ku mu fa nekkal ci suñu waajur yi comme ni nga koy waxee waaye dañuy dellu si waat rek waxaat inna lillahi wa inna ilayhi rajiun tey nag Ndoye Bane dafa xëy tey tàggee ma wax dëgg yàlla am koo xam ne day sama xarit mm. nit ñi yàgg nañoo dégg ma di ko tagg ci taxawaay bu am mm. solo ba mu nekkee woon fële ca Abidjan muy Abdou Karim Bass wax dëgg yàllam di woon mm-hmm. consul fële ba di fa def liggéey bu am solo bu am solo àndoon ak mu baax mi ak ñaana Souran. maa ngi leen koy jaale ñoom itam waaye di ko jaale mboolem waa daayira yi Treichville ba euh, Sassandra ak San Pedro foo ci jaar ci daayira rek wallaay ñoom ñëpp <laughs> ñoom ñëpp ajame ñoom ñëpp maa ngi leen koy jaale bu baax a baax a baax tey ñaan rek yàlla na yàlla oyofal suuf ci kawam di wax waa jabootam yëpp que ne bokk nañ ko ak ñoom ndax man daf ma boole woon ci jabootam ñu ngi koy jaale wa Abidjan gépp gépp gépp gépp wax dëgg yàlla macha allah mm-hmm. Abidjan benn la ak Sénégal wallaay noonu la ñuy nuyoo soxna Awa Diagne mu baax di déggante moom. et merci pour le beau ma macha allah. jërëjëf Awa. Uh-huh. Ndoye Bane. jaajëf salaamaaleykum yow itam de. Hmm? yaa ngi noonu ngay def. loolu ko def masque yow kay yow kay yaa nekk di sëqat rek xaw daal ko jara moytu nga nag temps yi man day sama yëf yaa fi de ah xaw ma de wóoruñu de les gestes daal. waaw yaa ne di sëqat gan gi xam na ni yaa fi ne di sëqat <laughs> voilà bëgguma gan gi dem ñibbi naan aywa ah, doon. sëqat gannaaw feebar gannaaw feebar gàcce new ca. Mm. dañuy wax alhamdulilah. ne yàlla mais waxal yaa ngi sëqat rek yaa ngi sëqat rek moo tax ma sori la ni. li ziar ñi ngi ziar kilifa diine kilifa aaday ci réew mi yëpp. wallaay wallaay euh, ji sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdou Khar. di ko ñaanal bu yàgg fi lool te wér. amiin di ziar waa Pire Sañoxoor yëpp sunu xalifa sëriñ Mansour Cissé ak euh, Serigne Maodo Cissé ak moom parent ji bi Diagne. ak euh, monsieur le maire Serigne Mboup. dëgg ak autorité yi fa nekk yëpp ñu leen di ziar bu baax. di di di di féliciter sama benn booy bu fa dëkk boo xam ni mooy directeur u DTV di Mansour Sow. Euh, journaliste la. tey dafa may waa Pire benn appareil. ophtalmo yi ñuy maire di seeti seen bët yeeg ñoom seen mhm. muy appareil waaw bu mag bu cher li ma ci neex mooy li may faral di wax rek soo dee xale nekk ci ab dëkk da ngay fexe ba amal njariñ waa dëkk ba. c'est vrai kon boog ku ma koy félicité bu baax a baax Mansour moomee Mansour Sow de journaliste directeur ñu koy sant di ko gërëm bu baax. au nom de toute la population de Pire ñu ngi koy sant di ko di ko gërëm bu baax a baax. macha allah mm. Mansour Sow euh, ñu ngi lay remercier bu baax a baax xam naa ne. Mm-hmm. ñoom docteur Koura Sey Ndiaye dañuy kontaan ci ci moom. ndax ophtalmologue yi dañoo bëgg bu kenn amee. Mm-hmm. problème mu bët moo tax ñu ngi koy ziyaara bu baax a baax a baax euh, baax. ñoo ngi lay fay Thiam salaamaaleykum waaleykum salaam rahmatullah. bisimilah dalal ak jàmm ñu bàyyi la nga présenté wu au public. donc euh, maa ngi leen di nuyu. Euh, soxna Eva di nuyu mami. jërëjëf Thiam di nuyu tonton Ndoye donc mu nekk émission bu ma bëgg bu may siiw si ñu ko temps maye. souvent dañuy am tuuti temps. donc yàlla wërsëgal ñu am benn télé bu ndaw ci ci bureau bi. yeneen saa yi suñu amee temps dañuy dañuy dañuy dañuy seetaan ndax. vraiment gis nañ ne. tamit thème d'actualité la. vraiment ñu ñu amal ko solo loolu. Mm-hmm. Euh, ñu remercier aussi euh, suñu kilifa bi nga xam ne moom la ñu bàyyeekoo Thiès muy docteur Faye muy kilifa hôpital bi nga xam ne moom la ñu wax docteur Bathily Amadou Bathily docteur Amadou Bathily hôpital mm-hmm. docteur Amadou Bathily. Mm-hmm. moom mu nekk kilifa hôpital bi. docteur Mamadou Moustapha Faye mi nga xam ne daanaka moom moo fi waroon toog mais li ñu wax rek. ku ñu yóbbante rek dañ koy xoolee cëru wala euh, jëm ka ko yónni ka ko yónni te muy dëgg waaw donc euh, ñun ñu teewal ko fi ah, ñu nuyu personnel de santé bi yëpp muy infirmière muy sage-femme ci période yi nga xam ne métti na loolu muy période Covid 19 bi. Mm-hmm. Ah, di remercier personnel communautaire bi parce que dinañ fii bas kanam dinañ xam ne euh, liggéey bi wala waxtaan bi ci action communautaire la donc mu am personnel boo xam ne dinañ ci dellusiwaat mooy personnel communautaire ñu leen di remercier may Euh, équipe bi nga xam ne moom laa àndal parce que ñun euh, bureau la ñu yore wala boog service la ñu yore muy madame Diagne madame Soumaré Mohamed donc ñu doon euh, ñu neex a liggéeyal mais ma def mention spécial aussi ci équipe bi nga xam ne ñoom ñooy gérer Covid 19 mu nekk loo xam ne lu yombul gën a remercier nag ki nga xam ne moo ñu yombal plateau bi muy AMREF à travers Bachir bi nga xam ne moom mooy yore moom mooy responsable bi Babacar nga xam ne moo bàyyee ko ci waawoon mais surtout Oumou Kaltoum ndax wax dëgg yàlla coordination bi dem ba 22h moo ngi coordonné ak man et c'est pas facile donc macha allah jigéen gu mun góor la ba may ñëw nii malgré am na crise d'asthme mais moo ngi coordonné ak man donc. mbaa euh, mbaa mi ngay tane moo ngay tane. mbokk waaw. <laughs> loolu doon lu sori ci man wax dëgg yàlla pour wan engagement ak détermination ci bëgg liggéeyam donc euh, maa ngi leen di remercier yéen ñëpp vraiment. ñaan yàlla. plateau bi vraiment lañu fiy taataan yàlla na doon loo xam ne day doon jëriñu askan bi mu doon loo xam ne vraiment la ñuy wax dégg naa topp naa yàlla gën a renforcer vraiment euh, euh, partenaire yi nga xam ne ñoom ñooy appuyer lu mel nii parce que di ay actions rafet lañu ñu may doole ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk di def travail sur le euh, yaa ngi ñëw ci euh, njiitalu Ambev comme ni nga ko waxee euh, nga ñëw ci ñi nga xam ni ñuy waxtaan ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu acteur communautaire yi te nu bokk ci macha allah ñu bëggoon nga indi wàcc tuuti leeral fu mu toll ni saa si tembe fan ngeen toll. waaw ak Ambev mun naa ne bii suñu deuxième phase ak ñoom bi Covid bi di soog a door. Euh, dañu porté woon seen choix ci district sanitaire de Thiès xam ngeen ku ne Covid na Dakar na Thiès donc ay zones yu nga xam ne on plus de cas concentration yi fa la ëppee. la bañ na ba gars yi dañuy def sax épicentre donc fi nga xam ne foofu la cas yi gën a ëppee ñoom dañ ci concentré seen effort donc mu nekkoon pour la première fois ñuy liggéey am ref mais. mu def différence par rapport ak euh, ay organisation yu bëri mhm. parce que gis nañ ne période bi nga xam ne moom mooy période bi pandémie bi tàmbalee muy covid bi rassemblement yi nit ñi dañ ko doon bañ réunion yi dañ ko dajaloo bi bokk dañ ko doon bañ mu ëndul nouveauté nouveauté yi nga xam ne travail en ligne bu efficace macha allah mooy euh, ñëw na présenté na boppam en tant que organisation ñëw bëgg a jàppale askan bi rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo bàyyeekoo Thiès ci xeex Covid 19 bi mhm. mais jaarle ko ci li ñuy wax engagement communautaire mhm. askan bi seen bopp ban taxawaay la ñuy am pour xeex Covid 19 parce que damay faral ne ñun ñun rek ñun waa kër docteur mënuñu lépp. mënoo nekk sa bureau wàcc ci askan bi war a def ak ñoom waxtaan war leen gunge. gaa mooy li gën mooy moom la ñuy wax médecin sans blouse mooy li gën. mais jot bi moo ñu ko dul may temps bi moo ñu ko dul may. donc am ref ñëw pour jàppale ñu mooy personnel bi nga xam ne newoon nañ fi naam. avant même Covid 19 bi fi nekk di gérer di ñu jàppale ci yeneen programme parce que souvent damay ne gàcci ngaalaam personnel communautaire. muy relais muy bàjjanu gox ak keneen ak keneen képp koo xam ne yaa ngi woy sa bopp personnel communautaire ndax amuñu payoor amuñu salaire mais dañu am motivation mhm. donc dañu am lu ñuy wax euh, esprit de citoyen dañu am esprit de patriote ñoo xam ne xaaruñu ñu leen di fay wala xaaruñu dara di jóge ci keneen di ñëw ci ñoom ñoom ñooy jógal seen bopp ne ñun dañuy jóg def suñu partition xeex suñu bopp wan na ñun dañuy door waar te xaaruñu ci dara donc ñooñu dara su leen ci fekkee dañu ne alhamdulilahi rabil alamin ndeysaan waaw donc am ref ñëw action mu orienté ko ci personnel communautaire parce que xam na ne ñun suñu nekkee ci malade yi nekk ci appel yi gestion à distance bi nekk ci yóbbu malade yi ci centre de traitement yi ñi nekk di def émission ñi nekk ci télé bi ñi nekk ci rajo bi am na liggéey boo xam ne war nañ ko def ci askan bi est-ce que ñun jot bi may nañu ko il a très compris que faw ñu am yeneen bras te bras yooyu mooy personnel communautaire. Mhm. donc moom mu def ay actions yoo xam ne c'est des actions communautaires. mu wax ñu yéen ñi nga xam ne yéen la nekk ci bërëb fajukaay. Mhm. district district su ma koy su ma koy misaal la koy centre de santé ak post yu ko wër. Mhm. ñun ñu am 35 euh, postes de santé. ak centre de santé bi muy 36 donc 36 ci ay distance am na ñoo xam ne sorente bi àgg na ba 40 kilomètres donc c'est pas chose facile te personnel période boobu métti woon na mois de mars métti woon na ci Sénégal rawatina ci Thiès. mars mars daaw waaw mars daaw métti woon na trop. am ref ñëw pour jàppale district pour ñu am soulagement côté boobu donc mu defal leen formation avant formation ñu def choix au personnel bi ñan la ñu gis ne avec ou sans dañuy jàppale seen askan. d'accord ñu def lu ñuy wax maillage mooy fépp ñu mën fa laal ba nga xam ne foo woo ku nekk wuy la fu ne donc 36 yi foo woo ñu mën la wuyu. peut-être li nga xam ne moo ko wuteeg yeneen organisation yi moom liggéeyam lu ci ëpp en ligne la ko def donc formation bi ñun tàmmuñu woon def ay formation en ligne ñun formation présentielle lañ tàmmoon woo nit ñi dajale leen mais environnement Covid bi mayatuñu ñu def ay réunion mayatuñu pour ñuy dajale nit ñi AMREF ñëw indi innovation donc ñun on a beaucoup travaillé ak AMREF ci première phase bi lu ñu wax leen nouvelle technologie mhm. ñu commencé formation yi se faisait via WhatsApp ñu defal ñu formation parce que nag ka ci terrain bi la muy tarif ak mu wax ko xam ko donc munoo tari loo jàngul donc il fallait que personnel communautaire boo xam ne au delà de ñi nga xam ne ñoom ñooree pat bi mm-hmm. ñi am plus ou moins même niveau fa ngay wàcc ci biir askan bi donc faw nga xam lan mooy feebar bi lan mooy covid 19 na muy wàllee na nga koy moytoo mandarga yoo xam ne nit ki su ko wanewee ci yaram mm-hmm. mun nañ yaakaar ne am na wala amul mais lu koy dëggal rek nañu wax ne mooy test bi. donc personnel boobu il fallait que ñu former leen te il fallait lee que ñu am dajaloo. donc am ref innover de tele sorte que nit ñi am formation bu ñu wax une formation en ligne. Mm. très bien donc tout ce personnel la a été formé en ligne. bi ñu leen formé en ligne ñoom yemuñu ci formation en ligne donc mu mel ni ay soldaar yoo xam ne formaa nga leen da leen war a yóbbu ci champ de bataille. Mm. ñu ne duma leen bàyyi noonu. li dooleeku encore mi ne dañuy def ce qu'on appelle des VAD sécurisés des visites à domicile sécurisées dinaa la seet si duma la yóbbul dara mhm. du la bàyyil dara mais du ma jëlee ci yow dara mhm. donc ñu former leen équiper leen très bien jox leen ay masques waaw jox leen ay gel ne leen duma leen jox yéen dong ay masque ak gel ndax wax dëgg yàlla kuy seeti gan foog mu am yóbbal mhm. donc ñooñu suñu leen di seeti faw ñu bàyyi leen gel si possible mais may leen masque masque yi moom c'était impératif. très bien fii feneen fu ñuy jërëjëf Thiam kontaan nañu lool. feneen fu ñuy dikkaatee ci yow bu ñu jógee ci ndoy baan ak Mamy mooy gis nañ ne levé nañu restriction yi mm. yan mesure la am ref jël par rapport à ça parce que bi muy ñëw fekk nañu ñu soog a door pandémie bi ñu dem ba ci kanam feebar bi gën fi ne mais n'empêche jëlee nañ fi restriction yi léegi ñuy bëgg a xam loolu très bien ñu ñu bàyyi la nga indi ci sa tontu waaw euh, deuxième phase bi boobu mooy première phase bi mm-hmm. juste pour def transition entre première phase ak deuxième phase yàlla bu troisième am. yàlla yem ci deux bi. <laughs> la may wax rek yàlla yem ci deux bi. dëgg dëgg yàlla ku bëri yërmande la. amiin amiin yaa rabbal aalamiin yàlla fa ñu nekk ak ñaanu suñu kilifa yu baax yi. amiin donc mu jox ñu possibilité. Mhm. produire ay masques yu ñuy wax dee masques communautaires. Mhm. jox ñu ci ba mu doy nag wax dëgg yàlla ndax masques yooyu moom ku ci ne am nga ci ba mu ba nga doyal. dëgg la ñu jox ñu ay masques ne wàcc leen ci askan bi. Mhm. waxtaan ak ñoom. ci njëriñ ku nekk na ngay fagaroo ba feebar bi bañ laa dal mais jox la matuwaay yi nga xam ne moo lay permettre nga mën a fagaru donc loolu mu doon lu am solo ci période bi nga xam ne ku ci ne yaa ngi xool wallaay jëlee masque xam nga léegi masque yi moom yomb na dëgg la mais il fut des temps cheroon na trop waaw partenaire jóge fële indi la ay carton masque kilo ceeb la ay gel gënal jëndi jërëjëf donc mu jox nit ñi masque jox leen ay gel ne leen wàcc leen bu leen yem juste ci hôpitaux yi parce que hôpitaux yi appuyé na leen quoi qu'on dise jox na leen ay masque jox na leen ay gelte xam nañ ne am na benn période xawoon na jafe même pour personnel bi ñu am équipement ba mu doy mhm. donc moom itam mu ñëw gannaaw li nga xam ne moo fi am appuyewaat opito yi mhm. jóge foofu ne dañuy wàcc ci askan bi mi ne dinaa gën a beral lok ñi nga xam ne ñoo nekk ci marché yi et vraiment man action boobu pas boobu mu def man euh, dafa sori ci man mhm. parce que dégg nañ ci ay wax yoo xam ne daw na yaram nga dem di appuyer di waxtaan ak sama yaay bi nekk ci marché bi yore table mag yooyu mais noonu la soxna si ba feebar bi tàmbalee ba léegi mosuma gis ku ñëw waxtaan ak man. mais ñooñu c'est des sénégalais ou des ñu bokk ci askan bi ñoo xam ne ils ont droit à l'information elles ont droit à l'information <coughs> mais li ñuy wax rek waa kër docteur liggéey bi bëri na. te vraiment jot amul wala amul formation boo xam ne population bi am nañ ko ba mun a wàcc ci marché bi. faaw relais yi taxaw faaw relais taxaw ñun ñu wàcc ak relais ñu superviser liggéey bi parce que damay ne liggéey boo xam ne kenn superviser wu ko kenn mënu ko waatal dara donc faw ñu saytu gannaaw ñu leen formé ñu wàcc ci marché yi ministère de la santé appuyé ñu ak affiche yu mu defoon ñu leen di jox masque di leen xamal lan mooy feebar bi parce que xam nañ ne fan nañ ñi di gën a dajaloo lu ci ëpp marché ci lay bokk ñu waxtaan ak ñoom collé leen affiche ministère am ay affiche yoo xam ah, c'était calé pour le marché yoo xam ne c'est spécifiquement pour le marché ñu jox leen ko waxtaan ak ñoom loolu sori ci ñoom gannaaw waxtaan bi ñu jox leen ay masque bàyyi leen masque wax leen njëriñu masque yi wax leen ko am masque bu dul masque bi naka ngay entretenir masque bi. très bien donc loolu am solo trop. jërëjëf Linguère wallaay merci beaucoup. Mm-hmm. soxna Fatima Zahra Thiam. Mm-hmm. Mm-hmm. ñu ngi koy jaajëfalaat bu baax moom itam tey ziar waa cees ga mu jóge yëpp. rawatina ci waa hôpital régional ak ba dugg hôpital. dixième bi mu nekk. Thiès mooy dëkki maître Fatima Sall. wallaay wallaay xam nga ñoom ak Seydou Sy Sall. Eh, kaay nag wax la dara nag Thiès ah. nag boo boo booy wër ndaanaan dëggantaan dëkk Ayta Sall. booy wër ndaanaan dëggantaan. <laughs> waaw tëppeelul digg Thiès jàkkaarloo. macha allah macha allah ay ndaanaan rek fa dëkk. c'est vrai di leen ziyaaraat bu baax a baax di wax ne wax dëgg yàllam di jaajëfalaat comme ni nga ko waxee relais yi mhm. ndaxte man dama dama naan bu ma xamee lan mooy relais wala su ma xamee sax lan mooy secourisme yëpp maa ngi ko xamee Thiès mhm. kon man suñu tuddee cees ngeen teew fi jóge ci am ref teew fi ci loolu daf may neex lool wax fa dëgg yàllam mhm. di leen delloowaat njukkal bu baax a baax waaye ñu gis ne comme ni la ko Eva laajee sànq Thiès di di boot ay gox goxaan yu bari lool ci ginnaaw. Mhm. benn district boo jël rek li mu boot lu nekk dafay ëpp. Mhm. comme ni nga ko waxee xam nga benn district bëgg a boot trent euh, cinq euh, postes yu ndaw ndawaat. Mhm. yu nekk ci kiwam comme li nga wax. kon lëkkale boobu noonu mooy que li ma doon faral di wax fan yépp rek. mooy que relais yi ñoom ñooy ci laalo bi rataxal cere ji pour ko dem ak ñëw bi gën a mën a nekk. léegi ci biir bi mu commencé ba léegi ndax da ngeen gis ne am ref mu ñëwee ci wàllum financement moom léegi que dañ naan ñoom li ñu leen dolli yéen xaaru leen ko woon euh. waaye ndax am na leneen beneen yokkute bu ngeen ci gis bu dul ne formation bi boo xamante ne tey bu ngeen sañoon am ref du jeexale foofu wala su moom suy jeexal foofu rek beneen ONG bu dikkaat fii ngeen bëgg mu tàmbalee waaw parce que am raf nga baal ma xam naa du ñàkk euh, wax dëgg yàlla réalisatrice dégg ko mm. am na téléspectateurs yi ñuy wax ne ñu ngi jot bruit bu bare boo xam ne mënuñu ñu dégg bu baax mm-hmm. xaw ma nag nee nañu y a trop de bruit mm-hmm. Mm-hmm. bien mangook mangook vas-y elle elle a elle a tout compris soxna eh. Fatima ma bàyyi la ak mami waaw yokkute bi mooy comme li ma wax jóge nañu première phase dem deuxième phase mm. parce que yemuñu ci première phase gis nañ ne première phase bi am na jeexital mm-hmm. am na ay changement de comportement c'est vrai ñu ne comme ñun dañ doon waxtaan ak nit ñi ci wàll man la ñuy fagaroo ba bañ a jot feebar bi mm-hmm. gis nañ ne nit ñi dañuy utiliser période boobu lu bëri ci technologie dëgg information rumeur yëpp ci ci ci technologie lay jaar ci ci téléphone yi mm. ñu tegal leen lu ñuy wax ay vidéo ay vidéo yoo xam ne nit ñi dañ ay vidéo yoo xam ne séquence yi gàtt la yoo xam ne ba lieu que nit ki di perdre temps am ci waxtaan yoo xam ne du ko amal njariñ mm-hmm. mu jël vidéo yi def ko statut donc dina am di nga gis nombre de vues di nga gis ñi nga xam ne ils ont mais li nekk ca gannaaw loolu mooy jàngal leen loo xam ne ñoom amuñu woon chance naam nekk ci ginnaaw euh, groupe bi nga xam ne ñoom lañ doon formé mais via ñu ñu formé ñoom ñoo ngi wasaare information bi donc plus bu ñu am mooy tey ñoo ngi formé ay nit yoo xam ne mun naa ne en 10 minutes en 30 minutes su ñu jógee ci 25 personnes yooyu ñu formé mun naa ne 250 personnes jot nañ xibaar bi mhm. parce que am nañ ay vidéo yoo xam ne ça la ça am nañ la bon information te loolu moo ci am solo dëgg la information boo xam ne du dégg naa mais information boo xam ne borooma la ko c'est à la source à la source dëgg la les informations qui sont vérifiées et ça permettait ñu gérer rumeurs yi mhm. donc loolu am ref def na ko yemul foofu bi première phase bi jeexee mu ñëw ci deuxième phase mu ne léegi dama bëgg nit ku ne bala ma laa wan parce que partenaire mhm. souvent dañ ñuy tooñ ne les partenaires sont des faux amis mhm. du ñu dem ak yow ba ilaa yow mi diit du ñu wéyaay ak yow mhm. dañuy ñëw def seen mission dem keneen ñëw aussi jeexal mission bi am na ci yenn partenaires yoo xam ne tamit weenu jëlañ wane seen bopp moo leen tax a jóg te mënoo bëgg a jàppale nit ki bëgg ci njëkk a wane sa bopp wala nga ne man naa ci njëkk a gañe ba pare mënul nekk boo ko defee li ngay jàpp du baax yenn partenaires yu ci ñuy def mooy que seen bopp rek la ñuy wane en tout cas euh, am ref euh, exemple la ci ci partenaires yi. wax dëgg yàlla exemple la ci partenaires yi ndax mënoon na yem ci première phase mais yemul ci première phase bu ñëw ci deuxième phase. gën a approfondir li nga xam ne loolu lañ la. muy euh, dafa am style visite. mu ne léegi dañuy dugg kër kër gu ne relais bu nekk di nga am fukki kër yoo xam ne chaque semaine di nga fa doxantul ñeenti yoon. Mhm. xool lan moo man coppite moo am ci comportement yi. Mm-hmm. est-ce que sio bi foo nekkoon première bi moo ngi foofu ci deuxième vague bi. est-ce comportement yi changé na est que nit ñi suñuy génn ñoo ngi takk masque. xaaratuñ ci relais bi xaaratuñ ci parce que dañuy xam. Mm-hmm. li may wax rek. kuy xaar policier bi ba muy jege si nga takk sa masque rek daa fekk yow xamoo njëriñ masque bi ndax naa masque bi du pour policier bi masque pour sa bopp la mm-hmm. donc ku xam sens de la responsabilité boobu donc loolu lañ doon xool waaye loolu yàgg na ci Ndakaaru di ak ci Sénégal <laughs> boo dee sa oto sax boo ko amee di fay assurance fayoo ko ngir ngir sa bopp waaye yaa ngi kaa fay ndax policier bi dana la arrêté waaw lu ñuy wax ne changement de comportement dafa doon loo xam ne processus bu gudd la bu xaw a métti la parce que lu nga judduwaale wala tàmm ko duñ ko mën a génne ci ñaari fan ñetti fan mhm. ñu ne nag dañ lay toftal benn relais boo xam ne dina dina doxantu sa kër ñeenti yoon ci weer bi war a waxtaan ak yow war a jël temps am donc loolu mu jagleel ñu ko loolu mu jox ñu ko loolu sore ci ñun ndax yemul ci maye masque yemul ci joxe ay gel yemul ci defaral leen t-shirt boo xam ne mooy wan ne ñoom ñoo ngi liggéeyal ONG bi ñu ne dinaa def ba nga xam ne dina am lu ñuy wax communication de proximité la docteur ba waroon def ba malaat ba jàkkaarloo ak moom dinaa former relais bàyyi leen ñuy dem sa kër di la nemmeeku loolu neexul Eva ahan kay neexul mami kon noonu doy baan loolu neexul très bien du ñàkk boobu ñu madame Dour la ñuy wax Mia mu dugalal ñu ñi nga xam ne ñooy itam téléspectateurs yi mhm. parce que dañuy bëgg a xam bu baax bëgg a poser ay questions bu ko defee waa waa waa waa très bien xam nga man damay def ñaari émission mm. mi yaa ci man man ci yéen <laughs> lépp mënuma koo wax. très dama dama dama ko bëggoon a laaj. ba la muy dafa ne ndax loolu neexul ma ne ko romb na neex mais kon ci biir neex neex boobu. dëgg la nangu nga kon que ni même bu am ref jàllee. ndax moom wane na yoon bi mhm. mooy que état ak ñi nga xamante ne ñoo yor wàllum faj mi mm. dañoo war a taxaw pour dooleel mbooleem relais yi nga xamante ne ñoo nekk ci Sénégal mm. ndaxte léegi jàpp naa ne ak lii wane nañ seen liggéey bu baax a baax a baax a baax mm. mais beneen bi ci topp mooy wane nañ ne lépp lu dikkatul nekk communication mooy li war a jiitu te communication benn gënu ci sut relais parce que man yàgg naa fekke hôpitalu dixième boobu ay tee débat ay yeneen ak yeneen yu fa daan am te loolu xëy na jamono waneetu ko mais li ñuy jógee ñoom mën a dem mën a xam fii metti fan la mhm. ñu dem kon wane na ne capsule yi baax na trop parce que pour sensibiliser la mhm. mais war nañ gën a taxaw pour dëgëlaat dëgëraatal relais yi ñi nga xamante ne dañ ci demoon Bambey ñu former leen ñu xëcc leen dugal leen ci biir système bi gën a taxaw ndax am ref ubbi na bunt bi wane na yoon bi très bien am ref naka la def ak jigéen ñi parce que xam nga jigéen ñi moom lu jotaay yaatu yaatu yàllaa leen njëkk a cërale waaye itam ndaje bu ñu dem am na cër boo xam ne jox leen jox nañ leen ko naka ngeen def ak ñoom. waaw ñun peut que chance bu ñu am déjà structure bu ñu nekk rek hôpital bi ñu nekk rek jigéen yaa ëpp. d'accord sama mari souvent daf may tooj ne ma jigéen yi di judd nag moo ëpp li góor yi di judd de. yàlla ko def <laughs> ma ne ko loolu yàlla ko def. mi ne ma soo yéen demee ci caisse de sécurité sociale bi ñoom rek ngay gis ma ne ko bàyyi liggéey wax <laughs> donc am na ku fi toog daal nee ñun dañuy toog rek di nangu jaxal am na ku ko wax de. waaye du ma ko yee ndax ma nga ne tekk di nu seetaan. <laughs> donc euh, dafa am solo. waaw dafa am solo parce que lan mooy wan ne jox na cër jigéen yi. Mhm. mooy xam nañ ne ki nga xam ne bëgg na. waaw dinaa jàppale sama askan dama doon jigéen nekk mère de famille mhm. yore sama njaboot des fois dafay xaw a compliqué waaw mu yenn liggéey yi ñu sas ma ko donc dafa am flexibilité ci wàllu liggéey bi mooy du ñuy imposer nit ñi horaire du ñu imposer nit ñi jour duñ déedéet dañ lay wax semaine baa ngi nii xoolal sa temps libre nan nga may defalee activité boobu mais qualité laa ci bëgg mhm. te defe naa nañuy wax ñoo ñuy wax ne qualité laa bëgg ñooñu xam nañ ne mhm. qualité mooy force liggéey mhm. donc par rapport ak dunduñ jigéen yi defe naa ñoom ah, oyofal nañ leen ko oyofal nañu leen ko te wax dëgg yàlla équipe bi ñu yore daanaka jigéen ñi ñoo ci ëpp ñoo ngi wane seen bopp donc euh, gis ngeen ne man macha allah on est le mois de femmes te man maa géré euh, service éducation information pour la santé bu district sanitaire de Thiès te biir de Thiès macha allah jigéen yaa ci ëpp ci ñuy gérer wàllu communication boobu yàlla ko def nañ ko nangu rek nga xam ne macha allah. très bien <laughs> jërëjëf soxna Fatima Zahra Thiam Ndoye Bane am na looy bëgg a dolli ci waxtaan wi. waaw dañ ñu ngi koy sant ko gërëm déglu nañ ko attentivement mais puisque dafa ni Thiès rek. mu hmm. doon laaj est-ce que euh, AMRES Thiès commune rek la yam ou bien ci région de Thiès la couvrir parce que région de Thiès. Hmm. région bu rëy la. région boo xam ni dem na ba mbuur mhm. jóge mbuur jaar ne lay dem ba boori Pekes ak ñoom seen. Mhm. Euh, région bu rëy la est-ce que am AMRES bii ngay wax nii Thiès commune rek la yam ou bien ci département Thiès la yam ou bien génn ba ci région safa soo xoolee Covid bi su nit amee Covid ca village yi. Mhm. ginnaaw Kilmax ak yooyu. gaa yi dafa am benn comme ni ngeen waxee da ngeen di liggéey. ci wàllum. i i i i xaw ma lan i xaw ma noo leen ko tuddee da ngeen di waxtaan ci groupe whatsapp yi da ngeen di ubbi benn groupe whatsapp su amee ku feebar ci village bu mu gën a ndaw mhm. automatiquement euh, ki nekk Thiès chef bi nekk Thiès da koy da koy yëg ngeen top chaîne bi mu jógee euh, ci village bi ñëw Tivaouane jógee Tivaouane doog dañu am seen cartographie voilà euh, chaîne la chaîne boobu noonu mhm. kon donc ce qui veut dire que am rek su fekkee ci région de Thiès bi la la couvrir ñu xam. su fekkee am ref dafa yem ci Thiès commune googu noonu rek foofu noonu rek ñu xam naka lay naka ci biir Thiès parce que soo nee Thiès rek c'est vague. Mm-hmm. donc euh, lu may wax ci district Thiès. district Thiès koy wax ma ne am na poste yoo xam ne c'est des postes yoo xam ne soriwaay bi àgg na 40 kilomètres. donc da ngay dugg ba ci village yi gox goxaan yi. Mm-hmm. donc ñun district Thiès. Euh, yamuñu juste ci commune bi dañuy am ay postes yoo xam ne ci biir commune bi la nekk am postes yoo xam ne ci ay zone rurale lañ nekk zone yu reculées donc am ref bi ñuy ak moom dañuy dañuy liggéey ak moom ci zone yëpp lu ma loolu la ñuy wax maillage mooy fépp ngay laal waaw suñu loo soxla foo activé bouton bi rek nit ñi tontu foofu très bien waaw nit ñi répondre la foofu donc am ref maayee na biir biir district sanitaire de Thiès léegi am na ay actions yoo xam ne c'est au delà du district de Thiès parce que euh, district Thiès benn la ci district yi nga xam ne ñoo nekk biir région de Thiès mais moo ngi wàcc yeneen district di fa béy waar comme ñun mais soo leen demee nee ñu yegg Pire parce que laaj naa waa Pire mais xamuñu leen xam nga tout ce que dire kon ngaay ak dëkk yu ndaw ndaw waaw ñoom xam nga dañuy dañuy choisir après ñu élargir parce que voilà yéen a ngi ndar ñoo euh, ñu ngi partout au Sénégal mais en général dañuy nekk ci grande ville yi mais village yi ku feebar pire wala ku feebar ngaay dañ lay jëlee foofu indi la cees hôpital régional hôpital régional la tudd du waa pour waa Thiès rek c'est pour région bi yëpp la donc moo loo tax ñu boon xam ba xam ci euh, am ref mi ngi laal ci ci ci village yi c'est parce que très important parce que mhm. am am ref na mu juddoo gana la waa ji doon jógee jël avion di dem ci village maanaam da daan jóge ci village docteur George Michael Wood mhm. da daan jóge ci village bi gis ni ñen ci ville bi gis ni ña village ba uh-huh. dañuy feebar mais pour ñu ñëw ci ville bi fee faju si uh-huh. day métti mu kalangaatu moog benn xaritam bu benn avion benn jet privé di dem di fekk nit ñi ci village donc dañuy bëggoon waa Amres ju jóge ci Thiès di dem ci village yu ndaw yi di di di comme li ngay wax ni c'est am na c'est important mm. di ci ñamal tamit ñi nga xam ñoo nekk ci dëkk ndaw ndawaan yi Euh, foo dem nag am na ay relais communautaire ña nga fa mais am na ci ñoo xam ne ba léegi amoo xamaguñu am rek pour que ñu gën a gën koo yaatal sax defe naa ne dina doon dina am solo nee nañ yóbbante yóbbante ak la dina àgg incha allah ci am ref mais fàttali rek ne ñun dañ fi teewal district sanitaire de Thiès non am ref mhm. euh, ci action communautaire yi mhm. donc moom volet bu mu wax euh, mun naa ne volet boobu traitement yi la gën a laal ak référence yi te am ref ci wàll ànd ak district yi ci wàllu covid ay action communautaire c'est-à-dire moom day ñëw former nit ñu ci wàllu communication. pour gestion geste barrière yi. nan la ñuy moytandikoo feebar bi lan moo ñuy dal lu mel ni ay mandarga ba nga xam ne suñ ko gisee suñu yaram mën nañu am xel ñaar na Covid la ñu am wala amuñu Covid. Hmm. boobaa ñoo ngi dem hôpital. Hmm. suñu àggee hôpital rek liggéey am ref daanaka du ma ne jeex na. mais day am limite donc moom day gàttandu. Hmm. liggéeyam mooy nan la ñuy def. ba mu bañ a mais c'est facilitateur la jëlee woon Thiès village yi. ah soo communiqué ak ñoom dina dégg Cees namuñu ku mel ni yow parce que ñi mel ni yow bari nañ fa. mais ñi mel ni yow la ñu war a coppati tuuti ci jox ko village yi ñuy xam nga amam ah, it di wax ak ñoom ci ñu mën gën a comprendre. question bi ma lay laajaat mooy couvre bi dafa ñëw Dakar ak la tëjoon. Mhm. ban njeexital la liggéeyu am ref am ci ci ci ci Covid bi parce que gis nañ ni première vague ba ñëw na xaw ñoo doggali. Dakar ak Cees ba tax ñu tëj dakaar ak Cees. liggéey am rek ban impact la am ci population bi. très bien loolu tam laaj la. waaw laaj bu bu la bu am solo la. Mhm. mooy li ñuy wax euh, changement de comportement sànq maa ngi ko doon wax. Euh, ma ne leen deuxième phase bi liggéeyam nekkatul euh, gérer groupe bu mag mais dafa personnaliser communication bi da ko dafa def de telle sorte que. man dama doon ñëw ci gox di def porte à di waxtaan ak nit ñi xëy na benn yoon lañ may gis ci marché bi. gis ma benn yoon ci koñ bi gis ma benn yoon ci kër gi. ñu ne benn ak jàll benn yoon est-ce que dina am jeextal bi nga xam ne soxla nañ ko. parce que xam nañ ne loo bëgg a soppi ci benn jour nga koy soppi. foofu ngay wax di wax di waxaat. am ref ne léegi damay changé stratégie gox gu nekk muy village ba ñun dañu am ay village ci biir. soo duggee biir Tasset di nga fa fekk ay village soo mhm. duggee biir Sam Ndiaye di nga fa fekk ay village mhm. soo duggee biir Pout Diack di fa fekk ay village donc ñun am nañu huit postes yoo xam ne mun naa ne carrément ci biir zone rurale ay nooto di nga daw bu baax a baax ba génn ci bi dugg ci biir village yi nga xam ne mais ba tey ci Thiès sa bokk ci district sanitaire de Thiès mhm. foofu am na ay relais yoo xam ne la waa Thiès commune di def loolu la relais yooyu di def ci ñoom donc am rek lu mu indi nouveauté bu mu indi ci période bi nga xam ne vraiment xawoon na serré xawoon na métti mooy dugg leen ci kër gi. Mhm. nemmeeku waa kër gi xamal leen lan mooy njëriñu visite bi nga xam ne moom la ñuy def te duñ ci yem ci benn. dinañ fi dinañ leen seeti ñeenti yoon ci biir weer bi. Mhm. donc semaine bu ne relais bi nga xam ne moo bàyyeeku ci gox bi. Mhm. donc faaw nga dëkk foofu foog nit ñi xam la foog nit ñi miin la pour nga mën a am. possibilité def liggéey boobu parce que liggéey communication la waaw wax seen soxla waaw seen soxla dafay dafa laaj confidentialité dafa laaj laaye biir dafa laaj am jotul nit ñi te am ref may ñooñu possibilité changer stratégie ñuy dem di waxtaan ak nit def porte à porte di seeti nit benn yoon ñaari yoon ñetti yoon pour mu am changement de comportement pour ñu xam ne certes mesures yaa ngi fi métti na mais li ñuy wax rek santé amul prix. loo ko jëndee jar na ko bañ a xam njëriñ yi nga xam ne moo tax tey ñu ñu restreindre yenn moo am restriction yu métti ñu xam lan moo tax tey marché bi dootul ubbi ci dimanche parce que dañu war a raxas marché bi lan moo tax marché bi 18 heures parce instant boobu day am foule boo xam ne doo ko maîtriser te nit ñi du ñu sol masque. donc am rek may possibilité relais ñi mën a dem ci marché yi ñi mën a dem ci kër yi fu mu sori sori rek mu am baat boo xam ne dina la jottali wax la lan mooy njëriñ Covid bi parce que nag. ku Akondis yombul woon. c'était difficile pour ñëpp. mais ba tey jàppale nañu loolu ñu ko ciy sant wax dëgg yàlla ci phase yëpp. très bien merci soxna Fatima. ngeen a nekk ci ci comme ni nga ko waxee ndax boo demee ba taset ak ay nootoog ay ñoom njaay ba ba ngay egg njaayeen sarax ak côté yooyu. Mm. bi bi jamono Covid bi dikkee ndax amoon ngeen problème ak ñi nga xamante ne ñoo waroon ñëw indi seen doom yi pour ay affaire vaccination ak ñi nga xamante ne sax dañu amoon yeneen feebar avant Covid bi di ñëw ak jigéenu wéru bi ban suivi ngeen da doon ci def ak naka ngeen doxalee ak ñoom ba nga xam ne ñemewaat nañoo dellu si waaw vraiment euh, def naa ne plateau bi moom macha allah ay question ay question yu pertinentes yoo fi génn loolu dafa nekkoon lu ñuy wax cheval de bataille ci man. Mhm. émission rajo yi ma doon def yëpp daanaka bokk na ci li may tëjee sama émission. d'accord na leen naam Covid baa ngi fi mais ana yeneen feebar yi. est-ce que Covid rek moo fi nekk. Mm-hmm. mais sama pap bi nga xam ne dafa diabétique nga xam ne médecin moo koy suivre. Mm-hmm. Covid ñëw na dootul dema ci hôpital ñu ne non dafa war a dem hôpital. léegi hôpital moom mooy jël disposition yi nga xam ne moom mooy sécuriser nit ki ba nga xam ne dina dem. Mm-hmm. ba du fa jëlee Covid li may na du ma fa jëlee dara naam du ma fa bàyyi dara aussi. donc hôpital jëloon na disposition yi. mais lu ñu wax rek euh, communication bi au début. Euh, nit ñi xawoon nañu ragal. wala boog nit ñi ragaloon nañu parce que ku ci ne ci moment bu waaw moment lu bees la woon ba tey maîtriser wuñu ko ñoo ngi cerner ñoo yàlla ñuy dimbale chaque jour mm-hmm. ñi xam lu bees ci moom ci tàngee ñu ci doon am au début yàlla moo ngi ñuy dimbale ba nga xam ne macha allah affaire yaa ngi ñoo ngi koy modéré mais au début yow xamoo man xamoo ñun mi suñ doon dem vers les populations pour ku am Covid dañuy sol mel ni kimono dañuy sol mel ni cosmonaute bi nga xam ne moo ngi dem dans l'espace nit ñi da ngay aw ci koñ ñi lay la di yooyu parce que xamuñu loolu mm-hmm. jàng rek ak li ñu gis ñi nga xam ne ñoo ñu jiitu ci wàllu Covid bi foo la ñu jàngee. ak formation yi nga xam ne ministère de la santé homologué na ko jox nañu ko OMS jox nañu ko. donc c'était compliqué pour les populations ñoom itamit pour ñu ñëw parce que ku ne jàpp nga ne su ma ñëwee ci hôpital bi. coronavirus laa fay jëlee. su ma andi sama doom vaccination. am na ñu toog ci plateau bi sax dañoo déserté woon ay temps. waaw daal dee daw dañuy jàpp ne coronavirus moo man plateau yu ma doon toog dama doon wax carrément plateau télé yi nañu respecté distanciation macha allah. Mhm. gis ngeen fii macha allah respecté na et puis aéré na. donc man dama doon exige nit ñi ci loolu. parce que loolu mooy communication bi bi nga xam ne moo waroon ci moment yooyu. plus ñuy dem plus ñuy gis lu bees. plus ñuy changer. Mhm. ñi jël communication bi di ko adapté te loolu mooy communication dañ koy adapté ci jamono mais soo soo demee Thiès. ak région de Thiès ak district ya fa nekk yëpp ci région yëpp man xam nga man je suis dans ci région bi laa bokk. Mhm. Euh, district yi wala par bërëbu fajukaay yi ñoo gën a Covid nit ñi maanaam ñoom ñu fee bërëbu liggéeykaay yi gën a feebar euh, nit ñi est-ce que du looloo tax nit ñi ragal daan ginnaaw Covid bi ñëpp koy daw ñun ñi suñu demee. danañ am problème fu ñu toog danañ problème problème organisation est-ce que du looloo taxoon nit ñi doon daw. lan mooy bërëbu. Euh, bërëbu liggéeykaay maanaam. nit ñi dañu doon yaakaar na suñ fa demee jël fa coronavirus. bërëbu liggéeykaay yi fa fajukaay yi dafa feebar. d'accord Thiès région de Thiès soo demee hôpital régional moo gën a feebar bu Dabaax Malick bu te bu Tivaouane mu dabaax Malick moom moom dafa dafa dafa dafa Covid ba ba nekk euh, cas grave moom bu ba nekk fee. ba ba ne Tivaouane bisu ne ñoom ñi ngi yuuxu wàllu. waaw looloo tax ma ni lan la am ref def est-ce que mbaa masque d'accord masque ak gel am na solo est-ce que dina leen dina jàppale district yi ci wàllum matériel ak ñoom seen pour que seen liggéey gën a gën gën a ñoŋ parce que ONG international la. Mm. ni mu nekkee Afrique noonu la nekkee daal ci dëkk tubaab yi. donc am nañ xaalis am nañ matériel que day doon dugal seen loxo ci matériel yeeg ñoom seen am am ak waa li may wax rek pour dellu si ma dem ci réponse bi. Euh, naam seetlu woon nañ ne population déserté woon nañu bërëb fajukaay yi. Mhm. parce que comprendre ñu woon. ñun itamit jël nañ suñu disposition. Mhm. souvent dama doon tooñ di ne l'endroit le plus sûr c'est les de santé. Mhm. li tax ma wax loolu. parce que ñun suñu demee ba comprendre na mooy wàllee ak nañ koy moytoo defe naa am nañu avance ci lu ci biir hôpitaux yi lan lañu doon def bala ngay dugg am ref joxe woon na relais pour ñu am ay thermoflash mooy ñu mën a xam température nit ñi parce que. ñu doon wax ci symptômes yi corps chaud gorge qui fait mal. écoulement nasal muy saqat wala muy tissoolu yeneen saa yi mu ànd ak yàlla ak yeneen ak yeneen donc joxoon na possibilité structure yi ñu am ay thermoflash. Mm-hmm. loolu benn point la naam du du appareil bu bu mag a mag mais c'est ki la may rek sant ko ci li la may. Mm-hmm. te muy dem te muy dëgg ci beneen bi mooy euh, jàppale woon nañu ci dispositif de lavage de may parce que lu xawoon métti la dispositif yoo xam ne ay dispositif automatique yoo xam ne duut euh, euh, poste yëpp la ko jàppale mais jàppale na ko centre de santé. dispositif lavage des mains. mooy soo ñëwee ba ci buntu bi ñu tegal la thermoflash bi pour xool sa température. d'accord ndax yor nga température bu normal wala yor nga température boo xam ne day alerté ci biir. liggéeyoon nañu ak relais yi ak ñi nga parce que du am ref rek moo nekkoon ci champ de bataille bi amoon na yeneen organisation ak société civile yu ñëw nañu appuyer. liggéeyoon nañu ba de telle sorte ko man ak soxna ma mi duñu kolante. suñu tegee fii un tëbal chaise bi deux ne kenn du toog ci deux. trois ngay toog ba léegi ñu ngi koy gis ci yenn ndaje yi. voilà trois ngay toog donc sécurité bi ñoo ngi koy gérer de l' à la sortie. d'accord patient yi ñu ne na ngeen soriante. Mhm. gannaaw bu ngeen duggee ci biir structure bi ñu xool seen température am na dispositif bu nekk ci buntu ba da ngay raxas sa loxo bala ngay dugg dangay ngay raxas sa loxo bala ngay génnee doo fi dugal dara doo fi génneeg dara. donc loolu mu am mu nekk lu am solo mais li nga wax ni vraiment cri de cœur la euh, yóbbante la encore de plus comme j'ai dit. Euh, organisation bu ne ci période bi dañ lay ñaan vraiment noo mën a appuye structure yi. très bien noo mën a appuyer structure ah, lu mel ni ah. hôpital régional lu mel ni dabaax bi mu wax ci waa woon. dëgg du appui du ndaw te appui du doy. Mm-hmm. am na beneen yëf bu ñu tàmmoon di gis jamono bi Covid soogee si mooy kiit yi nga xam ne dañ ko doon teg ci mbedd mi boo ñëwee ci koñ yi mag yi nga raxas sa loxo ba mu set daa dee euh, jël gel def ci ak yooyu. mais léegi dañu gis ne itam euh, wàññeeku na lu bare bare nit ñi dañoo dem ba taay dara nag lay lay xalaat saa su ne euh, relâchement boobu ñun ba feebar bi gën a jafe lañu gën a ñeme ci feebar bi te ba mu soogee ñëw ñun ñëpp ñu tiitoon mu mel ni tiit boobu sax dafa gënoon waaw sénégalais lu mu mel yëpp ko yow. waaw la may faral di beneen ba ci des raxasukaay yooyu xaaj ba sàcc dañ ko. xaaj ba ca des ña ko fa indi woon roñ nañ ko yóbbuwaat. ah. Euh. gars yi Sénégal bëreet lañ am. ayca man mm. bu la ci bëreet ji rëccee Sénégal bu la nit ne dama lay may sax bul bàyyi mu dem na la ko jox léegi léegi <laughs> léegi. bu ngeen doxee ñaari paabar jël bunt bee dootu la joxati juróomi dërëm. nga ni bàyyi ma man. ah bul wax lii man réew mi riita mbale rek nga fi am. <laughs> moom daal bëreet ji daal ci tàngaay bi. taal sax buñ ko taalee bëkkat yu njëkk ja noonu. bu ci ah. li baxul dootul baxati illaa yow. baadu baadu boo toppoon nit di ko naka di jiin bu bu la nee dana la jox da ngay téewaay. laay xanaa xamoo ne koy jiin jiin bu njëkk bi day tiit danaan bëre day am benn ñàkk bu sew mais bu ñàkk boobu feddee tey nga dee da ngay jiin ba suba mu ne kik. <laughs> macha allah ah ñaan nañu am ref relever le défi bañ a def noonu. waaw ba am boo xam ne day relever le ba keroog bu ba seetaanee émission bi mu indi ay matériels yoo xam ne li tonton Ndoye Bane di wax yu luur li nga xam ne structure yi soxla nañ ko. Mm. soxla nañ ko muy am ref au laa de am ref bépp organisation wala bépp société civile wala bépp bonne bonne volonté bi nga xam ne ñoo ngi seetaan. Mm-hmm. képp ku mun a jàppale structure de santé jàppale structure de santé. yaa ngi koy defaral sa askan bi. ku ci mel ni ñoom ñoom góor gi si Dieng. chaque fois dama koy lim. Mm-hmm. ak ay moromam. Mm-hmm. ah ñoom Sadio Mané. effectivement levé nañ gis nga ni ñu levé affaire yi euh, avant ñu koy levé sax dafa mel ni levé nañ ko. parce que soo rombee Thiès terrain yaa nga doon fees dell marché yaa nga doon fees dell xew yaa nga mel ni tukku sa bënn saañ ba réer Thiès ga jógee ñu bëgg ambiance la ñoom seen waaw euh, mais tesax rax ci dolli ñu lëfe ko est-ce que liggéeyu agent communautaire yi dina yombati day gën a métti métti woon na mais day gën a métti mhm. day gën a métti parce que un yàgg na euh, nit lu yàgg ci moom rek day soof ci moom mhm. lu mu miin rek lu mu miin rek daana ko dafay mel ni ku koy démystifier mhm. mais nag attention le corona est là. il est là il parce que euh, la Covid 19 tue. léeg nag réalisatrice daf may wax lu ma neex mënuma koo wax ci kaw ca la Covid 19 la xam nga damay faral ne buñ ko ragal wax boobu buñ ko ragal. Mm. neexul dégg de. ah mais gis nañ ko ba mais dañu toll xam ne il faut que ñu koy wax. dafay reyee te gis nañ ne vague bi ñu nekk nii les jeunes sont très touchés te li ñu gisoon première vague bi on avait des personnes âgées qui touchées. ba ci ñu biir communication vraiment am na nu ñu doon aborder jeunes yi mais fi ñu gis nii euh, jeunes yi ñooy nekk ci terrain de football bi. c'est vrai ñoom ñooy def tey débat yi. dëgg la ñoom ñooy dem plage. Mm-hmm. sama papa day toog ci këram sama yaay day toog ci këram takk masque jàpp ñaam ñoom ñooy génn ñoom ñoo koy indil. su yàggee kër yi kenn du fa desati ndax ñoom ñoo gën a fragile ñooy baali moom waaw te ñoom gën a fragile donc levé nañu mesures yi euh, levé nañu euh, mesure d'urgence yi mais nañu xam ne le corona est là chaque jour ñu dëkk moom loo xam ne wàññeeku na wala loo xam ne jeexul niroog loo xam ne jeex na dëgg la mu ngi fii euh, dafa du ma ne dafa gën a féroce mais wax dëgg yàlla moo ngi ñuy wan euh, yoo xam ne vraiment miinu ñu ko woon waaw miinu ñu ko woon ci moom ñoo ngi góorgóorlu nag def suñu kéemtalaay kattan parce que yàlla may nañu chance ba nga xam ne bokk nañ ci équipe bi nga xam ne ñooy gérer euh, suivi à distance patient yi mhm. donc am nañ ci tuuti tuuti xam-xam ci côté boobu donc ki ngay wax ne am nga corona ak ki ngay wax ne ba nga defee test dafa négatif dafay am écart donc dafay doon ñu ci bëri du ñu yaakaar ne dina leen mës a dal parce que dañu jàpp ne kële rek lay dal wala boog li may dégg rek la loolu c'est pas une réalité mm-hmm. Mm-hmm. mais dafay nekk lu lu lu métti am na ñoo xam ne dinañ ko accepter mais dinañ am ñoo xam ne dañuy am difficulté pour accepter seen début traitement ba seen fin traitement da ngay da ngay mocc ak ñoom da ngay mocc ak ñoom te aussi seetlu nañu euh, soxna euh, Fatoumata Zahra am na ñoo xam ne seen feebar ñii dañ la naan dañuy faju ci trois semaines defe naa mais am na ñoo xam ne seen faj dafa dafa yéex. lan la solo nit ki la wala. waaw xam nga li ñuy wax la suñu borom moom mooy bind nit te wutale leen. seen mhm. yaram lu muy xeexee. Mhm. waaw li may faral di ne souvent ma ne leen il faut gestion psychologique. am nga feebar bi nga tiit rek am na lu bari lu wàññeeku ci yow. parce que dafa soxla nga am stabilité psychologique nga nangu ko déjà ça c'est un pas. Mhm. dafa mel ni docteur bi ngay seet mu accueillir la. waxtaan ak yow dalal la donte feebar bi feebar bu garaaw la nee na madame wala monsieur dina jàll incha allah. Mm-hmm. suivre traitement. mais ni ngay nanguwee loolu ak ni nga koy accepté mm-hmm. wàññi na lu bëri ci yow jox na la force boo combattre feebar bi. Mm-hmm. mais dikk nga ak sa ngóore ñu ne la feebar bi dafa dangereux. waaw da lay rey de xam nga kooku. rey nga ko rey nga ko loolu ko naa rey ko yow yaa ko rey. ko naa rey ko yow yaa ko rey. dëgg la donc gestion psychologique boobu. dafa am solo. te yàlla dimbala ñu ba équipe bi nga xam ne ñun ñoo ko yore vraiment ma leen di sur ce plateau là ma leen di rendre hommage vraiment. très bien ah jigéen ñi ñoo fa ëpp aussi ci équipe boobu am na suñu ñoom tonton Seck ñoom tonton Sylla ak docteur ak yooyu. waaw mais. chaque jour sa téléphone day sonné chaque waxtu sa téléphone day soxla day sonné nga tàmbale ci euh, gunge nit ki ba keroog muy wër pour revenir rek sa question mooy li nga wax de ñii deux semaines ñi tane ñii trois semaines mooy li ma la wax rek. Mhm. ku ci nekk sa organisme nu muy réagir mais ba tey. très bien lay gunge rek. am na beneen prise en charge aussi bu war a am. Mhm. ci ñi nga xam ne dañu wër ci Covid. dañuy dem ba du ñu ñemeñ. psychologique ah ci euh, prise en charge psychologique. psychologique ñoo koy def parce que dañ équipe lu ñuy wax équipe pluridisciplinaire lañu ñii ñoom ñooy gérer test bi. d'accord ñii ñoo yore centre d'appel bi. waaw soo woowee ñiy décroché wax la lan ngay lan ngay yëg ci sa yaram. Mhm. nga ne lii laa yëg ñu ne la tel jour da ngay ñëw nga def test bi. Mhm. ñii suñ la defaree test bi. moo am équipe boo xam ne moom mooy gérer suivi bi. dañ lay toujours ak de la santé. waaw ci biir euh, district ren moom yéen a ëpp liggéey ci àdduna bi. moom kañ li li li enseignant bi waxoon ma laa. xewal man ko nañuy xewal ci jàmm. waaw waaw bëgg bëgg leen bii bëri yaa leen aye man ko nañuy aye ci jàmm massa leen coono. donc vraiment gàcce personnel de santé. dëgg loolu mooy loo waat te bëgg ko te. mu nekk sa xol rek. soo koy def danga koy def ak amour bu bëri. te muy dëgg soo koy def doo ko may guddi doo ko may bëccëg mais sa sa satisfaction bi ngay am. mooy ñu naan mu naan alhamdulilah madame de defal nañ ma test bi test bi négatif na oh, te loolu di ko dégg dalay gën a may force ndonte sonn nga sonn nañu na xam nga un an nga koy liggéey bay dugg ci deuxième année bi te jëloo congé sans répit te ñu def 3 mois yoo xam ne amul samedi amul dimanche amul congé amul dara nga continuer waat di woyal wax dëgg yàlla ku ne mm. méttiwul daa fekk da ngaa togg suñu te boole ci ak di wax ak di wax ñoo xamante ne nii euh, ba maa ngi jégalu ndoy baan di wax ak ñoo xam ne dañu neexut a waxal ndax li Eva ah, ah. di wax dinaan leen déedéet feebar bi am na mm-hmm. ñoo la gën a xam ne feebar bi am na wax nga ko sànq feebar bi day rey ñoo la gën a xam ne feebar bi day rey ndax ku jaay juróom-ñeenti màgget waxaale sa maam ba njëg di leew nga xàcc ko mm-hmm. xam nga njëgu mag lu muy jar mm-hmm. xam nga dafa leen loo xamante ni nit ñi dañ koy def di ko def ci lu leen dëgg li tax ñu di leen massawu fuñ toll man sa rawatina ci mooy que dama gis ne da ngeen di wax ak ñu dëgër bopp te guddi nopp bu doon tax dégg kon mbaam yet du ko dal te balaa liggéey faaw ñu ne mm-hmm. am ñoo xamante ne da wax ak ñoom ci xoos leen dafa ñoo xam ne danga leen di xuri am ñoo xam ne da leen di mbéj léegi nag pour nga mën a def nekk ci diggante boobu dafay metti yow yaay dem ba am amati mm. dund mm. kon yéen ak waa am ref da ngeen dem ba amatu leen dund depuis un an yëpp looloo tax amatu leen congé amatu leen tëdd nelaw est-ce que sëy yi yu ci bari <laughs> tabarkaal la am ref moom après damaa ragal de dina nekk dem ref ay la may xalaat yàlla bu téye dangereux mami am ref xam naa ne am na problème ak euh, agent communautaire yi moom nag lépp lay yëg parce que tey jii samba samba siin mi toog rek Euh, agent agent communautaire yi est-ce que découragé wuñu am ref jox na leen ay moyens et ñu war a dugg ci dëkk bi sensibiliser population bi surtout ci région de Thiès beeg ak biir Thiès commune. mais daf mel ni ñoom agent communautaire ñi waxal ñu ngi leen di déglu buñ day jaar fii génn fale est-ce que duñ dem ba découragé est-ce que am ref tamit mu ngi leen di motiver motivation boo xam ne dinañ leen jaral continuer parce que soo xoolee population bi ni ñuy joxale on dirait que dégluwuñu sa agent communautaire de ñu ngi lay dit ñi ngi ñi ñi ngi dégg nit ki di wax naan la del raxasu del takk masque moytu rassemblement yi raxasu bi wàññeeku na takk masque wàññeeku na parce que rassemblement yi toq sa bënn saañ ba réer ma maanaam euh, mesures yi ñu tegoon xaw na te xaw nañ ko teg mm-hmm. est-ce que tey jii kon agent communautaire man de su ma doon agent communautaire man ku man mi gaaw a gedd man génn naa ci est-ce que ñoom découragé wuñu est-ce que tamit am ref mi ngi leen jox loo xam ni tamit wala seen district décentré bi am na luy jógee ca kees googee di dem ci seen poos am luy jóge ca keesu am rek di dem seen poos ndaxte lekkati kese kepp naxutuy béy bëgg naa sama réew lool wax dëgg yàlla bëgg naa sama gox di leen sensibiliser waaye tamit bëgg naa leen saa yi su ma wàccee ma jox soxna su lu ma toggalee ak ginaar lu gumma gumma gumma bëse très bien découragement moom mënu ma wax décourage mënu ma wax découragement parce que des fois euh, dund moo mel noonu. Euh, y a des hauts et des bas. c'est mmh. la vie elle est ainsi faite. Mmh. donc di wax ak nit ba si yàgg nga gis na am na relâchement c'est difficile. non on le comprend mais dañ leen ciy former. c'est-à-dire que suñu leen jëlee dañu fekk ay nit yoo xam ne particularité personnelle communautaire moo tax dama leen di rendre hommage sur ce plateau là parce que souvent dama leen leen di wëyal. muy taw muy naaj mu am ngelaw yaa ngeen di dox. mais ci yan base lañ leen di jëlee. dañ leen di tànn parce que dañuy gis ay nit yoo xam ne dañuy motiver. li ñuy wax engagement communautaire ay volontaire la ay engagement communautaire. maanaam dugg te xaaruñu ci dara. merci volontariat euh, dafa am benn euh, jury bu ma doon bu ma yore woon. bu doon am ci benn bu ma doon président mu am xale bu jigéen boo xam ne daf ma marqué. waaw fu mu ko laal xale bi fële feneen fu ma ko wut ba xale bi na ma gis nga madam maanaam dafa waane. waaw ñun daal ñooy dajale la ñu am. waaw dem di jàppale ay nit. ma ne jeex na elle a la première. et bala formation bi di jeex mu ñëw ne ma madame may ma mask parce que nag dafa am ñu mooy war a dem distribuer ay masque lu waaye am na ma jox kon xam nga kooku da ko gëm kooku xaalu ñaar dërëm ci yow. Mm-hmm. mais xam nga lan mooy satisfaction personnelle mu gis na Covid amatul fii. mu gis na nit yaa ngi dox di takk masque mhm. mu gis na ku sa masque tilim yaa ngi koy fóot mu gis na siwo bu ma doon teg ci buntu kër gi tey mu amoon ay fan ma génnee ko xam naa li tax ma war ko teg parce que Covid baa ngi fii. Mhm. donc su ñu amee benn nekk ñu am benn personnel communautaire boobu. kooku da ko fekk ci loolu. te suy dem da ko fay baax parce que gëm-gëm la ci moom. loolu mooy différence bi ak koo xam ne dafa jóg ut dara ci ONG. moom am rek bu muy ñëw dafa fekk ay nit yoo xam ne ñun ñoo leen tànn parce que xam nañ ne ñii. 30 ans 25 ans ñoo ngi ci ay programme de santé ba nga xam ne xam nañ sa yaay ba keroog ba ba fekkee sa yaay fu mu sëyee ba fa nga juddoo ba nga nekk mag nekk disquette bañ lay maye te taxul ñu bàyyi liggéey bi xam nga ko ñooñu Amara dugalu leen ci te suy dem da leen fay bàyyi xam alhamdulilah ñun genre boobu la ñu am. ndax ni ngeen ko waxee ci njalbeen ba yéen ak ministère. de la santé yéen a lëkkalikoo woon. Mhm. noonu la lëkkaliko mhm. ba am ref ñëw fekk si leen. effectivement effectivement dafa ñëw dooleeku. ku ñu wax nag ah ñammas yàqul dara ci sër de. bu ko dul waaw. très bien am boisson bi nga naan. waaw wala am passe taxi bi. jaajëf rek lañ lay wax waxtu bi dab nañu ñu bëggoon rek. Euh, laaj la lan ngay tàggatoo. lan ngay wax lu ñu mën a waat bu baax. vraiment kontaan ci ci plateau bi kontaan ci ci émission bi. sincèrement dama leen di seetaan yàlla su ma mayee temps bi souvent damay nekk restaurant bu euh, district. Mhm. waaw euh, di leen seetaan wala ma nekk sama bureau di leen seetaan vraiment sujet yi actuel. waaw yu intéressant vraiment ay femmes de valeur ay hommes de valeur vraiment damay jàng lu bari ci yéen man vraiment plaisir la. Mhm. plaisir la découvrir millier bi. Mhm. plaisir la nekk ak ñi nga xam ne sama tata tonton Ndoye Bane mami bi nga xam ne bàyyeeku na formation ci Thiès. wallaay plaisir la di ñaan am raf nag. Euh, ci li ngeen fi wax am na solo lool moom li ma fi wax marqué na ma. Uh-huh. am na solo marqué na ma am na lu ñu defaral mais na gën a dolli loxoom. mangook jërëjëf loxoom. am na lu am def def waaye na gën a dolli loxoom te ñi nga xam ne war nañ leen a mën a dimbali itam ñu jàppale leen defe naa ne Ndoye Bane loolu la ñuy tàggatoo. loolu la ñuy tàggatoo ma koy félicité te naan ko nuyul ma waa Thiès bu baax a baax. Uh-huh. ak agent yi fa nekk yëpp. waaw su ko defee daal euh, gars yi gën leen a jàppale. naam ay volontaire lañu. waaye tamit suñ ci gënee jàpp ñu gën a sawar. Mhm. waaw góor defe naa ne dina dina dina dina am solo. di félicité bu baax a baax am ref ñu ko ñoom it ñu ginnaaw ñu ngi ci dëkk am encore ñaari fan. yu ñuy ñu gën a yaatal effectivement. ñu gën a yaatal am ref mu gën a nekk ci dëkk yi nga xam ne ñoo gën a sori. ci ville bi. waaw di leen tàggu rek ba suba ak jàmm. incha allah mhm. euh, mami Linguère. wallaay xanaa delluwaat rek di amaan bu baax a baax a baax di ziar waa Thiès yëpp comme ni mu ko waxee tey nag sama nuyoo yëpp dama koy jël rek jox ko croix rouge bu Thiès ndaxte ci ñooñu laa jàngee ne ndekete yoo te ñoom li ñuy def. Mm. bëgg-bëgg moo ko waral. Mm. ndax màggal gàmmu Popenguine feneen ak feneen nga dem gàddu sa brancard. Mm. di yëkkati ku la ëpp doole téeméeri junni yoon boo booy si paas sax daanaka mën nga ko bañ a indaale. ndox mu sedd doo ko indaale kon daal dañ leen di jaajafal bu baax ndax loolu mooy bëgg sa réew loolu mooy jàpp ci li xew sa réew xarit boobu ma yóbbante ay mbéj nag maa ngi lay nuyu bu baax Eva mi ngay jox mbéj yi du ma àdduna ci <laughs> kon nag bay boo rek nga toog sa rox ko jàpp ñëpp di wax ne waa Afrique am ref kenn amul seen ko boo bokkee ci askan da jàpp ba kon ñoom ñi ngi ciy jàpp bu baax a baax soxna Oumou Kaltoum ziar nañ la ki jaar ci robb bi nag di Mouri Fall sama taaw boobu nekk fële ci Ouest Foire numéro téléphone am 77 160 euh, 77 164 euh, 98 08 77 164 98 08 waaye ki jaar ci robe bi itam mooy madame Diatta salon sunu taar la ci Scat Urbam hmm. numéro téléphone am 78 la moom itam 173 61 euh, woo leen ko mu defal leen ci xeetu baax baax yi di jaale waat nag sama papa sama xarit boobu Abdou Karim Baas wax fa dëgg yàlla ma heure bu ma la musee fekk Abidjan sa teraanga ñëw na ci man di ko jaale Cheikh Mourtada moom Cheikh Abdoul Ahad sama sëriñ bi ma sukk jébbalu waaye di xaritu benn bakkanam maa ngi koy jaale njabootam yëpp macha allah suba ak jàmm. très bien ajaratu Mami Linguère merci Ndoye Bane jërëjëf. Mhm. soxna Fatmata Zahra cam yow itam ñu ngi lay <clears throat> remercier ci déplacement bi te bi nga dikkee itam waxtaan bi def naa ne yëpp leer na. Mia Ndour yow itam merci à toi et à toute ton équipe macha allah ñi nga xam ne ñoo toogoon di nu seetaan di leen fàttali ne rek ñaari fan dinañ ko àndaat ak AMREF ngir rek mën a waxtaanee li nga xam ne mooy seen taxawaay jëm ci Covid 19 ñu ñaan yàlla yàlla jëlee ko fi kon jox nañ leen rendez-vous suba ci kattanu sunu borom ak cofeel gudul jeex.